bisimilah mina seytaan rajim ñu ngi leen di ziar bu baax di rafetlu tamit seen teewaay ndax yëg-yëg la mu mel ni sëriñ Saliou bu ngeen ñu cee bëggee wax loo loolu mooy dafa mel da ngeen a bëgg a yëngal suñu xol wante dañuy dellu di santaal yàlla bu baax ndax euh, doon na bis boo xam ni doonoon na loo xam ne mënuñoo taxaw sax di ko nettali ndax fii jàpp naa ñun ñëpp ay ay ndaw lañ ndax booba loo nekk nekk xale war ngaa dégg sëriñ Saliou donte bu fekkee Euh, fekkewoo woo génn àddunaam wala da fekk nga nekkatu tànk mu nekk loo xam ne tamit bis bañ koy yëg doon na naqar ak tiis ak mbetteel boo xam ne jàpp nañ ni suñu àdduna bañ dalee euh, dund ba léegi mu am mbetteel mel noonu wante dañuy santar yàlla bu baax ndax Serigne Saliou mooy koo xamante dafa bëggoon ndaw ñi kon ñun dañuy sant yàlla bi ñu yàlla boole si ndawi Serigne saaliw oh, mu doon loo xam nag alaa kulli ñëpp ñoo ciy jaar metti na torop ñu koy fàttaliku 2007 ba tey jii nii chaque année bu ñëwee dañuy booloo ñun ñi nga xam ne ñooy ndawi Serigne Saliou nekk ay ay saali saali saalixaat ay saalixina di liggéeyal Serigne Saliou ndax dafa waxoon ni li Serigne Touba waxoon jox leen ma mag ñi ma def ci ñoom dañ jox leen mandat ñu ma def ci ñoom li Serigne Touba defoon ci mag ña moo tax ñu am yaxin bu baax ci euh, topp ci ginnaaw Serigne saaliw donte jóge na fi ay euh, leeram mu fi ay xasidaam mu ngi fi euh, dañuy fas yéene ñaxal Serigne Saliou ndax bu ëllëgee ñu am ngërëmu Serigne Saliou mën a am ngërëmul sëriñ tuuba am ngërëmul ngën gi mu def salallaahu alayhi wa salaam su ko defee ñu am ngërëmul yàlla te ku am ngërëmul yàlla rek xel mun naa dal leen di jaajëfal bu baax a baax. benn question euh, tey jii nii lan la la Serigne Saliou mos a defal wala fan nga mos a génte Serigne wala fan nga sa a jaaxle woo Serigne Saliou mu wuyu si la ba saay boo koy xalaatee sa xol day tool Euh, waaw Serigne Saliou liñ mën a wax ci moom bari na donte ay ndaw lañ ndax fii koo fi laaj gannaaw Serigne Saliou defal na ma benn di nga toog ak moom nga yëkkati sa xaalis jox ko wala bu fekkee euh, toogoo ak moom yaa ngi koy ñaqal te li ñuy wax rek saa yoo dogoo ci Serigne Saliou barke Serigne Saliou danga koy gis ndax man li ma gën a marqué mooy bi ma gën a nekk tu tànk saa yu ñu wootee euh, xelkom damay bëgg dem mais saa yu ma bëggee dem rek dama nekk sama benn kilifa boo xam day jàpp ne xel kom xamul daf tere benn année ma dégg ñu ni loo dogul da nga koy gis ci Serigne Saliou wallahi dama dogu man bu fekkee man bëgg gi ma bëgg Serigne Saliou dëgg la wala li ñuy wax ci Serigne moo am ci moom maa ngi dogu ci Serigne Saliou bi ma dogoo si moom année boobu 2018 ba ren damay damay dem xelkom te jàpp naa ni tamit euh, euh, xelkamu ren bi bi ñu génn la yàlla dogal ma am borom kër jàpp naa ni yàlla mooy maye mais daf koy jaarale dama dem xel ko may liggéey di góob mais lu ma lu ma def rek lu mu ndaw rek damay fas bu fekkee bëgg ma bëgg Serigne Saliou maa ngi dogu ci Serigne maa ngi ñaan yàlla yàlla def ma ndaw Serigne Saliou jaamu yàlla am borom kër bu baax te gis naa ko ak yeneen ak yeneen wax dëgg yàlla. amin amin ñu bokk lépp allah. salaamaaleykum. maaleykum salaam. tur bi yaay boo ñu fekk la fii si station bu Tivaouane doon def reportage si jëm bu tedd boobu ko baax ko sell ko muy Serigne Saliou Mbacké tey la laaj tuuti ay question si moom rek lañ la ñuy wax. asalaamaaleykum jërëjëf leen di ziar baax a baax yéen waa rajo bi di leen jox seen wàccuwaay di am mbég nag bu baax a baax barki Serigne Saliou di am contentement bu baax a baax seen yitte tey ngeen dagg ngeen ñëw fekk ñu fii nii ci station bi pour. suñu yaakaari tey ak ëllëg jooju nga xamante ne ginnaaw yàlla ak yonent bi moom moo ñu fi taxa suñu lépp moom la mu mel ne comme ni ko soxna si waxee léegi rek Serigne Saliou moom bu doon wax ci moom fii ba déwénit barke borom Touba du xaaj du jeex sax la ñuy wax ndax jëmm jooju nekkoon na koo xamante ne borom jamono la barke borom Touba ndax ndawi Serigne Saliou lañu mu mel ne jug daanaka boo dee xool mu mujjug jamono lañ nekk te xale yëpp koo gis koo dégg danaa Serigne Saliou Serigne Saliou kon suñu suñuy jamono dañoo toll foo xamee si ne suñu lépp Serigne Saliou la ñu le 28 euh, bi nga xamee si ne moom la fi bàyyikoo woon ñibbi aljana muy le 28 euh, décembre 2007 mu dellu siwaat at moo xamee si ne at bu heure bu dellusee rek comme nii lañ koy taxawalee ñun ndawi Serigne Saliou yi mu doon bis boo xamee si ne ne bis bu tiisoon la ci ñun bis boo xamee si ne bis bu metti la ci ñun waaye nag jaam ak pexeem yàlla ak dogalam waaye buñ ciy wax daal ñu xol day xaw a tooy loolu barke borom Touba Mbacké ndax sëñ Saliou daa daa daa sori torop ci ñun wallahi lazim daa sori lool lool lool ci ñun ñu koy ñaanal nag yàlla suñu borom yërëm ko yee salaat yërmandeem taasu ci ay barkeem waaye sëriñ bi moom dama leen ba a xamal ne leen suñ doon wax ci moom fii ba déwén tamit wax dëgg yàlla du xaaj ndax suñu lépp la barke borom Touba suñu lépp la. Euh, boo xamante ni dund nga ko ak sëriñ Saliou wala sëriñ Saliou mos la feeñu wala mu fàttali la dara loo xamante ni sa xol dina a tooy si sëriñ Saliou. waaw comme ni nga ko waxee rek lool moom boo leen laajee dama ciy sawar lool ndax man mën naa ne sama lépp sëriñ Saliou la. ndax bi mu nekkee àdduna mën naa ne lépp dama koo fekkee amul dara loo xamante ne ump na ma ci kon su ma ñëwaatee Tiwaawoon continué waat liggéeyal Serigne Saliou maanaam lu may àggale la rek ba ba may àgg ba ba may dem ca moom ndax su maa ngi fàttaliku ndeysaan mm, bis bi nga xamee si ne moom la fi bàyyikoo barke borom Touba Mbacke maa ngi ko comme tey ci man wallahi lazim am na nag ñu ci bëree bëree bëri ci fii nii daayira bi ñu ci bëri ay tout tànk tànk lan moon waaye nag it man yàlla dafa dogal bi mu fi bàyyikoo fi la ma fekk te ma di ko liggéeyal ba yàlla dogal mu làqu mu doon sama lépp nag man sama lépp Serigne Saliou la barka borom Touba Mbacke sama lépp Serigne Saliou la bañ na ko boo duggee suñu kër photo Serigne Saliou yi Sall baak kon xam nga ne sama lépp Serigne Saliou la comme ni nga ma ko waxee ni nag li nga xamee ne moom nga ma laaj léegi nii muy ndax mas na mas na maa feeñu ak li nga xamee si ne moom laa moom moom laa kii ci moom mu mel ne xel ko ren ji demoon nañ ci waaye nag it macha allah mu taw feexe lool ñu koy ñaan yàlla di ko fekkee ay at mu mel ne dama faa ñaan samay soxla amaan amaana soxla boobu ma fa ñaan barke borom Touba Mbacke fi may waxee yow nii yàlla suñu borom dimbali na ma ci ba sëriñ bi daal def na ci taw tawfeex lool barke borom Touba Mbacke kontaan naa ci lool lool lool wallahi la nga ji. asalaamaaleykum mbokki taalibe yi maa ngi leen di nuyu di leen ziar di leen ñaanal tawfeex saa su nekk itam te di ko saaku ci yéen di amaan ak contentement ci seen télé bu mag bi ni que moom mooy GP TV Sénégal di am contentement bu baax a baax ci seen yitte yi ngeen xamee ni que dagg ngeen ko ñëw ba fii nii di ànd ak ñun ci bis bi nga xamee ni que moom mooy bisu Serigne Saliou te ñun ku ñu bëgg la Serigne Saliou rek dañ lay bëgg ndax amuñu ko dul Serigne Saliou kon tey buñ ne dañuy fàttaliku Serigne Saliou ngeen ñëw di ko àndee ak ñun kon du ñu def lu dul remercier leen mu mel ni Serigne Saliou mu ngi ñu ngi fi bàyyee ko woon 2007 2007 ak 2022 2007 ak 2022 bu ñu xoolee depuis boobu ba léegi mu ngi toll ci fukki at ak juróom te mën naa ni jamono boobu noonu ci ku ci nekkoon xale fàttali ko nga loolu noonu ku ci juddu woon tamit instant bi ñu tollu nekk nga mag ñun ñu lu dul Serigne Saliou lu ñu am ci àdduna Serigne Saliou moo ñu ko gën a ndax lu ñu am ci suuf Serigne Saliou moom la kon donc amaat nañ bégte ak contentement ci yéen bu baax a baax a baax bi tey wal jës bi wa